moom daal di de la actualité nous exactement alors euh, parlons toujours d'assemblée nationale nous y restons pour euh, avancer sur la déclaration de politique générale euh, bu Ousmane Sonko Ousmane Sonko nous jox na ultimement encore une fois le 15 Nous que koy depuis les nga que peut être ça va vendredi passé on est le 2 donc il nous reste peut être bien 13 jours pour l'assemblée nationale daal modifier. Euh, indi réglement intérieur bu baax bi euh, génn si bii mu daal di nekk nii alors euh, jamono jooju nag ñu si ëpp ñu ngi wax ki na xam ne que mu di Thierno Bocoum Sangue def na benn conférence de presse jàpp na ni. Ousmane Sonko n'a pas les capacités d'un premier ministre Antonoko Loladari Japoni étant d'autres, il doit respecter les euh, institutions. Alors, Ousmane Sonko, Ming ngi que ni euh, suñu modifié le euh, règlement intérieur bi indi bu baax tenir exactement sa déclaration de politique générale devant à cette assemblée, devant les Sénégalais, devant les universitaires, devant les professeurs. Euh, ndax ñoo ko mérito exactement parce que li xew assemblée nationale xaw doy waa concrètement ben analyse nga daa def si kàddu yi nga xam Ousmane Sonko yëkki nous ko jëmale sa déclaration de politique générale une déclaration qui se fera populaire si toutefois euh, règlement bu nu mel way di firaat nekk je pense que ne loolu Ousmane Sonko wax. Euh, gars yi ñoo ko bëgg a jël déclaration bi mu bi mu ne da koy def ci ci ci mbedd mi. Hmm. wala ci place publique. loolu euh, opposition bi rek ñoo ko jël ne da koy def déclaration politique générale lay doon mais loolu amul benn cadre juridique même bu ko defee. amul Ben aspect juridique ne sera pas une déclaration de politique générale. Hmm. donc Ousmane Sonko il est habitué de faire des déclarations. sorties yi mu sont des déclarations. rassemblement yi mu def sont des déclarations déclaration politique générale bi du lenn lu may yow nga kat man ans yi bi wala may premier ministre fii li le gouvernement bi étalé li le bëgg def ci càmm gi lii la bëgg def ci mbay mi lii le bëgg def ci éducation bi li le bëgg def ci santé bi li le bëgg def ci li le bëgg def li le bëgg def li le bëgg def bu ko défé investisseurs yi gëna mëna ñëmé hmm. privé comme comme comme public international comme bilatéraux ñom ñëpp ñu gëna mëna ñu gëna mëna ñëmé pour mëna ñëw ne xamne kat xam nañ fa jëm les comme ko xam nañ fa jëm dañ mën a gën a mën pour lëkkaloo ak askanu Sénégal légui nak lolu moom la ne dama koy def pour euh, euh, euh, mu gën a tax investisseurs yi gën a a xam fu ñu jëm gën a mën a ñeme léegi nag loolu ça n'a rien à voir ak déclaration politique générale déclaration politique générale bi xam nga Macky Sall bi muy dindi poste premier ministre maam poste premier bi nga ko jëndee ay galgal la woon loolu yëpp ay jeu ndax Macky lu mu def lu ne jeu lu mu def lu ne boo ko analyser jeu la xam nga boobu daf ne prétexte bu mu joxoon. Hmm. daf ne prétexte prétexte bi de ci loolu. Mm, mm. daf ne moom président union xaw ma waaw président euh, euh, union africaine bi. Mm, moko jité won donc bobu mënu ko cumuler vraiment mu day 10 day 10 de telle sorte il faut mo am un premier ministre pour mu pour mu pour mu seconder ko sur les tâches de la république ndax tâches dafa metti de telle sorte que mënut bolé le qui ak secrétaire donc il faut mo am un premier ministre bi nga xam moo koy coordonner l'action du gouvernement donc mu ne da koy indiwaat yóbbu ko assemblée ñu voter ko mais buñ ko yobé assemblée ñu vote mais dafa am dafa am yo xamni ni ay article yo xamni ne dafa dafa dafa tënku wala yoyu dafa gallo ci ndoddu premier ministre moy 97 98 99 97 bi moom mooy wax ci euh, ci motion de censure 98 hmm. euh, bi euh, mom moy wax ci ci ci ci ci déclaration politique générale benen bi mom moy wax ci ci question de confiance mais yoyu biñu koy indi dañu ko war a ne indiwaat dugalaat dugalaatal ko ne kat li lañu ñu dindi woon yëpp donc liñu ñu dindi woon yëpp dañu koy ñëw indiwaat teg ko ci taabal ji. Hmm. mais loolu lañu defut dañu jël yoyu carnet eh, eh, motion de censure jël déclaration politique générale jël jël jël jël question de confiance yoyu yop ñu jël ko taxas def ko ay bis lañ ko def. légui nak loolu la Ousmane Sonko ne. Hmm. ba ñu maa def déclaration politique générale. Hmm. je suis dans les dispositions et je suis tenu de le faire parce que la constitution m'a l'a obligé c'est une obligation pour man ma def ko premier ministre fi jaar yëpp kenn ku ci ne xam nga def nga def nga sa déclaration politique générale. donc euh Abdou mbaw bi mu Abdou Mbaye bi muy def déclaration politique générale ëppal na 3 mois tax dañu woon 3 mois ko tënk ko ay ëppal nako 6 mois et quelque la def muy door def da wala def déclaration politique générale donc ki bañul il est dans les dispositions de faire sa déclaration politique générale mais li mu wax simple na ñew leen li nga xam ne dindi won ngeen ko. te yéen a ko dindi woon ci seen coobarey bopp. Mm. mais dugalaatal leen moo ko ma daal di mën a ñëw. te ñoom ñoo am ñoo am la majorité mécanique ñoom ils ont une majorité mécanique da ngay bës rek bouton moo ñu wax la la nga bëgg bu bu ñu soppeekuwut da nga daa bës bouton rek ñu nga nga am la nga la nga la nga bëgg léegi nag seen bouton boobu ñu doon bës duñ ko duñ ko doon bës ko nekkat kat Ousmane li moo ko tax a ñëw donc damay bës bouton bi ñu voté ñu ñu ñu ñu loi boobu dugg en vigueur bu ko defee nag moom. bu Ousmane Sonko lànkee na du ñëw day def déclaration comme ni mu ko waxee woon ñu xam ne moom moo nekkul ci yoon sénégalais yi daal di koy daal di koy joxan baaraamu tuuma mais loolu yëpp amu ci. Hmm. donc li ci ne mooy politique ga ci ne. politique boobu nag il faut ñu dindi ko xam ne ñoom fóorutuñ yàlla mooy def loolu da ngay doon xale da ngay doon bu xale bu ndaw doon diggu dóom doon mag dem ba dootoo mën a dox. donc ñom ci lañ toll ñom fi ne ci taxé di wala di ah. euh, hmm. donc nañu xam lool lool xamul pour vous dire que né ñom li leen fi des li sax ñu am nga yakar lan la benn bokay lan mo leen may ciow lenn dong lañ déssé ci pouvoir muy assemblée nationale pour pour lolu bañ bañ bañ leen recc pour le moment ndax mo leen ni may tour et mo leen ni alimenté mooy alimenté li nga xamne moy benno bokay gar ndax ñom fi dañuy yow est ce que man nga xam kan moy leaderu benno bokay gar jamono ji ñu toll. euh ah, est ce que nekul Abdou Mbow peut être. déet déet Abdou Mbow da nga nan mo ci gëna reuy rëy mo ci gëna ndaw gën cee rëy rëy làmmiñ assemblée nationale dong nak mais Abdou Mbow joxuñ ko benn mandat amul benn mandat li ñuy wax. amul non gaay li ñuy. amul non mais amul bo amul bo mom mi ngi offrir ko amadou ba gaay bi ñuy dem ay seen tourné ñi def bi ñuy def ay fouta yu sax amadou amudu ba yegu ko notifié wuñ ko yegut timit deug la mais ñi japp ni makki moy coordonné à distance miri non makki moy coordonné à distance mais deug na goro bi amadou mam jom mi deug na mom lay mom lay mom lay pousse dego amna fi ben ben keurel bu am fatik entre euh, euh, wa wa keur 13 fay ak matarba ndax Thérèse Faye dafa demoon Fatick convoqué benn réunion Matar Ba ñu convoqué ko notifié ko pour mu ñëw. Mm. Euh, chef directeur cabinet Matar Ba la dégg muy kaas ne sa waaye amul benn pouvoir benn mandat bu koy jox moom muy convoqué à son nom di convoqué Matar Ba di ko di ko kaas ñoom fi nii anarchie la parti ba anarchie la. anarchie la ñu fu neex waay waxee fu neex waay tëbee waaja moo ne Maroc di di jox ay coup baam ne leen léegi dal leen ci waaji et loolu mënuñ ko réussir. ah donc c'est des coups bas de Macky Sall la. oui coup bas de Macky Sall la. Macky ba tey loolu moo ngi. Macky ba tey ba tey mi ngi ci politique. mais ah, ma jàngat maam jàngat maam. mooy Macky mënut a digérer mënut a digérer aussi. Euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. mun ko digérer. non mun ko ko digérer pas mais ñoom ñaar. Euh, euh, il ne peut pas. Euh, Macky muy dem neexoo am bi gars yi dañuy wax rek. neexoo bi dañuy wax rek neexoo bi xam nga doo au mur il faut nga réagir. xam nga sa dafa dem ba Macky mi ngi woon dos au il fallait mu réagir. Hmm. ndax jàpp na ne candidat wu Amadou Ba. kam candidat wu Diomaye fay jàll. moom mooy li nga xam ne moo koy gën moo koy gën a moo koy gën a noppal. bu Amadou Ba peut-être jàlloon. dako man nako humilier deux fois. hmm man nako humilier deux fois man nako koo ay ñam mu jël leen tegg tegg leen fele ba paré aussi man na am yo xamné mom xam nako ci moom ba paré ñi xamuñ ko mu top ko ci lolu ça dit lolu tax mané sa way mom mo fa nek moy joxe ay kuubaam mais kuubaa yi li euh, wax naan ni yobante galgal ubut lamb comme ko galgal yow do nga fi ne di galgal mëno mëno ub lamb ja hmm. asamaana ba nga demee fele naan leen taxabal leen ko dugal leen ko mboot leen ko dugal leen ko fële boo ko defee duñ ko réussir. Hmm. alors problème bi alors c'est clair exactement par rapport à wàllu wu mel parlant toujours de Macky Sall ñi ngi wax aussi euh, son rapatriement ñu daal di koy indiwaat ci si réew mi ñu daal di koy toppee euh, la famille euh, de ses victimes mars ak avril. mars ak juin 2021 jàpp 2023 ñi ngi réclamer le retour de Macky